yal na yàlla wattu leen te aar leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yéene yi ñu am ci wuutu seen maam yu baax yàlla mottali leen yéene bépp mbokk yi ñu ñëw ci suñu juróomeelu buntu tey Muhammadul Bushayri di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi mu ni jaat li daawatihi al ashjaaru saajidatan wuy si na woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même garab tamsi ali tamsi ilayhi ala qadamin bila qadamin buñ daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan ñëw mel ni koy doxee ay yeel sans ñu yor ay tànk maanaam buñ daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jébbalu ci moom dangay gis ne tronc bi moo daan moo daan fekk si yonent bi di di dox di ko wut si ka annama satrat satratan li ma katabat furuuha min badi al xat bil qalami bu ñu daan ñëw ci yonent bi tracé bi ñu daan jaar dafay jub xocc ba dafay mel ni yow yaa ko liiñeel sa bopp rëdd ko ak big ne ko jaaral fii ngir jub gu ñoom yonent bi sallallahu ñoom ñoom garab yooyu di jébbalu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni yaa koy tracé ak big rek ne ko jaaral fii muy ji yonent bi mu ne mislal gamaami anna saara saairatan taqiihi xarra watiisin lil hajiiri xammi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jox la misaal ca niir wi nga xam ne daan na ko topp lu tàngoor wi metti metti dafa am niir wu ko daan topp di ko keral di ko feral ta di ko fegal tàngoor woo xam ne da daan tàng ba mel ni fuur ba nit ñi di wut fu ñu serloo ji yonent bi sallallahu alayhi wa buy dox ci naaj wi da ngay gis ne am na ker gu ko topp di ko fegal mu ne aqsamtu bil qamari mun shaq inna lahu min qalbihi nis nisbatan mabrudat al qasami mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi giñ dey ngiñ loo xam ne amul teñu maanaam giñ dara ba noppi bàkkaar topp la ca mu ne ngiñ lu mel noonu laay giñ ci yonent bi ne xar nañ xolam ba comme ni ñu xare comme ni mu xare woon weer bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar ñoo ko nuróo la ndax jibril la ko fekk ca xalimatu saadiya bi mu fay yarluwaan jibril tër ko ca àll ba xotti xol ba génne soxor génne kañaan génne mbon génne lépp fóotal ko boppam ba mel ni yàlla sopp ñu kastewaat ko joxaat ko mu dem nee na xar googu ñu xarul dënn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xar gu mel noonu yonent bi xar na ko weer mu ne maa ngi giñ ci loolu ni ñoom ñaar ñoo ko niroole mu ne wa maa xawal xaaru min xayrin wa min karamin wa kullu tarfin min al kuffaari an wa an mi Muhammadul Bushayri radiyallahu anhu nee na xaaru xeer wa ñu làq woon nee na làqul ku gën a tedd sallallahu alayhi wa sallam tedd nga googu mu tedd ci la ko xeer wi làq ba bi yéeféer yi egsee di leen seet mënuñoo gis sax sallallahu alayhi wa sallam parce que bi mu fa duggee lu mu gaaw gaaw gaaw ay miracle am na fa yàlla def fa la ko soob parce que dañuy wax ne ku yàlla aaral boppam kenn mënul ci yow dara te yonent bi yàllaa ko garantil boppam mu ne fa sidq ku dëggu ko wa siddiqu ak këka dëggal ka lam yarima génnuñu ci biir xeer wi wahum yaquluuna yéeféer yi ñoom ñi ngay wax sax naan maa bil gaarimin irami yi xeer nañ dem buñ sonal suñ bopp fi kenn néewul fii kenn néewul te boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ci biir xeer wi sidna abi bakri ni siddiq ci biir xeer wi waaw dannul xamaama wa dannul ankabuuta ala xayril bariyati lam tansuj wa lam taxumi mu ne dannul xamaama ñi ngi jortu ne petax mi wa zannul ankabuuta ñu delluwaat jortu ci jargoñ bi li ñu jortu ci petax mi ne mooy lan lam taxu mi mooy nenu fa wa zannul ankabuuta ala xayri bari lam tan suj ñi ngi jortu yi ne jargoñ bi mënu fee ràbb per petax mi tàgg fi nen fi yonent bi di fi dugg te loolu yàquwul moo tax yàlla kum aar nga aaru mu ne wiqaayatullaahi kaaraangeel yàlla aghnat moo gën a moo gën a moo gën a mu an mudaafatin ci mbubbu koŋ wala lu ñu ful min a duru a ci mbubbu koŋ wa an aalin moo gën a kowe minal utumi ci tata ne buur yi njëkk yi daan def tabax tata def ko ca kaw ñiy fett taxaw fa tiim ñi ñuy xeex ak na li yàqu yàlla aar yaa gën a kowe ñooña yaa gën a sàmm it ki yor ki yor ki yor koŋ moo tax kaaraangeel yàlla ku ko yàlla yiir yàlla defal na la sutura te yàlla defal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadul Bushayri nee na maa saamani dahru dayman wastajartu bihi illaa wa naltu jiwaaran minhu lam yudami nee na jamono musuma teg teg teg jafe-jafe ma sàkku wiiru ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ni jébbal nañ ma lu ëpp la kawe sama njort ca la ma doon sàkku danaa dem sax ba bu ma doonoon ko xeebu bu may ñëw ci yonent bi bi ma fatee doonatuma ko xeebu moom sallallahu alayhi wa sallam walal wala walal tamastu xina daarayni min yaddihi illa stalamtu nida illa stalamtu nada min xayri mustalimi mu ne musuma sàkkoo tàll sama ñaari loxo wala ma tàllal loxo ci jamono lu dul ci yonent bi laa ko tàllal jëme lu dul ne jébbal nañ ma loo xam ne laajuma ko woon sax ci teraanga moo tax yonent bi rek ay waaja ku daw sax wuti yonent bi boo dee nit dawal wuti ko topp ko ndax dañuy wax ne ganaar du gis kuy bojj di topp kuy taxani te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla bëgg ñu baax daf ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee rek da ngeen dindee ku jaar fi mu bëgg mu ne laa tunkirul waxya min ru'yaahu inna lahu ay ida naamatil aynaani lam yanami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal nee na kenn mënu wet weddi wax yoom boobu nga xam ne daan na ko dikkal te yonent bi sallallahu alayhi wa bu ko wax yu daan dikkal day soppeeku doon benn nit parce que diis gi wax yu diis a tax te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam martabaam ak wilaayaam ak daraja ju ko yàlla bindee woon àgg na ci bu tëddaan di nelaw sax xol bi moom mi ngi xoolee ndax xol bi du nelaw mukk moom sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam kam abrata wasaban bin lam si raaxatuhu mu ne bari na wa zaaka xina buluuxihi min nubuwatihi fa fii yunkiru fi xaalu muxtalimi mu ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis-gis yu wér yooyu ci bi mu bi mu bi mu bi mu amagul nubuwa wala nubuwa gi di ko xeeñ lu mu mos a gént guddi bu xëyee day mel ni bëccëg mu ne kon nooy weddee yonent boo xam ne lu mu mos a gént boo xëyee muy bëccëg bu xëyee muy bëccëg loola dafay am comme ni mu ko génte woon mu ne yonentu bu mel noonu nooy weddee wax yu gi ko yàlla defal tabaarakallahu wax yun ma bi muttasibin wala nabiyun ala xaybin bi muttahimi yàlla daal barkeel na yonentu boo xam ne wax yu gim ko jox sàkkuwu ca dara yàlla la soob mu jaarale ci digganteem ak yonent bi wax yu goo xam ne kenn laaju ko ko wala nabiyun amul beneen yonent bu mu ko jagleel ala xaybin ci lu fàddu bi muttahimi ci luñ koy tuumaal waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daan defal loolu tuuma àbbu ca lu ko yàlla defal lu wér la léegoo-leeg sax nga dégg yéeféer yi di ko yejji ne day jibar ba fekk na du jibar ku waxtaan ak sam xel boo wéetee xam ne li ko yàlla di defal lii du waxi nit mu ne kam abrata wasaban bi lam si raaxatuhu wa atlaqat ariban min riqati lamami yonent bi sallallahu alayhi bari waa na ku mos laal laal rek la lay def nga feebar mu laal la nga wér wala bari na ku jinne sadd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la taflee nga wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na lu ne ci taflitam yooyu lorom yooyu lu mu ci mosa a tafli mu neex daan na tafli ci satala ndox ñépp naan ci daan na ci teen mu fuur ndox mi génn neex daan na laal ko feebar mu wér bëtu xataadata radiyallahu anhu yonent bi daf ko masaa rek bët bi melaat na mu meloon moom yonent bi sallallahu alayhi wa wa ahyati sanata saba sanata sanata sahbaa daawatuhu xatta xakkat xurratan fi l usri duhumi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ci minbar di ñaan muy jamono sécheresse bu métti di nawet war a taw tawul yonent bi bi mu taxawee ci kaw minbar bi ñaan bi muy wàcc taw na ba fur yi fees dell ak ndox bi aaridin jaadat aw xintal bitaaxa biha saybun min al yammi aw shaylun min al arami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci niir woo xam ne bi mu tàllalee loxoom di ñaan bi muy teggeeg niir wi dikk na taw ba xur yi fees dell bi nawet bi ñëwee daanaka dafa mel ni que sax xur yëpp dañoo pell waaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ci ñaanam googu lu ne taxaw ci min bar bi ñaan bi muy pare rek yàlla nangul ko waaw moo tax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy koo xam ne kenn mënta xam degereem lu waay di sàkku rek sàkku ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko waxee woon ca bañ koy ubbi rek moo ne woon tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azimun te suñu mag ñi ñoom yàlla dafa mel ni daf leen déeyoon loolu seen kër-kër ak seen effort yépp ñu ngi ko jëmalee woon ci nemmee ko yonante bi ak xeeñtu ko ba xam mooy kan kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp di ñaanal ñëpp yàlla nañ ko yàgg teewe ak yu bari yàlla defal ñëpp sutura yërëmal ñu suñu way daw yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko bokkoon di def daaw wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu